maa ngi tudd Célie Ba man sociologue laa conseillère laa aussi si observatoire national de la parité kuréel la boo xam ne day saytu di natt di def ay proposition chef de l'État ci mborum parité waaye bu ñu waxee parité mën naa ne parité rakk la ci genre parce que genre moom mooy yaay bi moom mooy ëmb parité luñ ci jëblu nag mooy euh, ci biir euh, institution yi ci biir euh, document politique yi ñuy jël en charge euh, besoin yi maanaam euh, ku ci nekk muy góor ak jigéen mag ndaw lu mu soxla ñu mën ko jox parce que ñun politique la politique mooy lan politique mooy euh, politique mooy doxalin la boo xam ne te ci biir doxalin boobu ku nekk daf ci war a gis sa bopp en fait genre ñëwu rek yemale ñëpp genre day bëgg a wax nit ñi ne leen ah kii yemul yamul ndax am na ay rôle yoo xam ne peut yàlla moo ko jox am na ay rôle yoo xam ne société bi moo ko mooñaale donc bu ñuy euh, euh, bind politique bi wala bu ñu koy saytu dañu war a jël en compte euh, rôle yooyu noonu yàlla jox ak aussi société bu ko jox donc loolu mooy suñu tànk tey leeral loolu jéem leen gën a dooleel ci gis-gis boobu parce que ba léegi ñu ngi ci 2016 mais gis-gis bi dafa xaw a des dafa xaw a jaxasoo bu ñu waxee genre jigéen la ñuy wax donc loolu objectif atelier ba pour gën a leeral loolu ne ñun fii suñu tànk mooy bu ñu waxee genre mooy lu ñu mën a jël en compte besoin yooyu noonu ku ndaw ki ku mag ki góor ak jigéen parce que taxawaay bu ñu am ci société bi du bokk considération du bokk loolu moo tax tamit ci biir institution yi ñuy bëgg góor ak jigéen di ci nekk parce que man problème bu ma am bokk la kii problème boobu la am bu ñu amee ay institution yoo xam ne peut-être góor ñi rek ñoo fa nekk ay góor ñu mag peut-être am na ay problème yoo xam ne ndaw ñi góor ak ñoo ko am duñ ko mën a jëlaale en parce que nit buy wax ay problème day wax problème bu ko concerné donc pas forcément que problème moom moo concerné donc loolu mooy xeex peut-être parité bi pour ñu gën a mën en jël en charge problème yu góor ak jigéen ci biir ci biir askan bi parce que problème yi lu luñ koy dundee du bokk parce que satu bi ci biir askan bi du mën a du yem loolu moo ne woon suñu tànk tey leeral gën a doole conseil bi. rek euh, fii ñun ci Thiès man Alioune Diop laa tudd d'abord man maay président commission formation mairie de ville donc euh, parité fii ci mairie de ville franchement c'est c'est c'est c'est c'est extraordinaire mais nous l'avons réussi à 100 cent donc tant au ci niveau électif maanaam ci bi ñuy élire bureau commune bureau conseil municipal bi on a à 100 pour cent appliqué la parité. bi ñu xamee ne aussi monsieur le maire bon peut-être que il a réussi aussi la prouesse ci service yi mu am euh, au niveau administratif et technique pratiquement c'est la parité il y a pratiquement autant de femmes ko d'hommes ci service yi wala ci yenn structure yi nga xam ne ñu ngi ci biir mairie bi te pour firndeel ko secrétaire général lu mairie bi sax jigéen la te ci moom lañ appuyé ba mën a fexe ba mu indil ñu observatoire national pour mu mën a ñëw jàppale suñu collègue suñu xarit yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom jànku ak ñoom euh, Ibrahima gay ñoom ñoo nekk en charge pour réfléchir ci ci ay programme ak ay projet yoo xamante ni ni dañoo bëgg observatoire mën leen jox assez assez de man ay jumtuwaay yoo xam ne dañ lañu mën a permettre programme ak projet yi nga xam ne nii ñu ngi koy ñu ngi koy naal ñu ngi koy naal pour waa Thiès programme yooyu la dimension genre en tout cas ak parité bi vraiment mu nekk lu ñuy tenir bu baax baax euh, en compte suñu xamee ne Sénégal moom jigéen ñi déjà macha allah seen lim moo ëpp suñu lim te it ba pare ñëpp xam nañ ni que muy association yi muy daayira yi moom kuréel yu bëri yu mën a nekk seen loxo bu ci demul affaire bi day sooxee donc loolu moo taxoon ci projet ak programme de développement yi xam ne nii waa ville de Thiès moom lañuy xaar pour maire bi indil leen ko ñu fexe ba ñu am assez d'éléments ñu am assez ay jumtuwaay yoo xam ne nii bu ñu ko jëlee intégré ko ci lépp loo nga xam ne dañ koy doxal ci dëkk bi vraiment notion yi ñu fiy jëlee tey mu mën ñoo jàppale ba ñu intégré ko ci programme ak projet de développement yi nekk ci biir ville de Thiès. je remercie.